wa tatawruuna la màggee ca jëm maas bu njëkk ga ba ci maas ak juróom-ñeenteel comme ni mu ko defee ci tadwiinu sunna ki ko taalib mooy Muhammad bun Matar az-Zahraani mu ngi commencé ci bismillahi rahmaani rahim ak muqaddima muqaddima mooy tàmbali ma muqaddima mooy inna alhamdulillah ka cant yi laay ñeel na yàlla nahmaduhu danañ ko gërëm wa nastainuhu danañ sàkku ndimbalam wa nastaxfiruhu danañ sàkku njëggalam wa na'uudu ñu ngi musu billaahi ci yàlla min shururi anfusinaa suñu ay bopp min sayyiaati a'maalinaa ak suñu jëfi ñaaw man yahdihi ka jubal na ko Allaahu yàlla <coughs> falaa mudilla déet aji réeral la di ko ñeel wa man yudlil ko yàlla réeral na ko falaa haadiya déet aji gindi la di ko ñeel yàlla jubal amul ku ko mën a réeral yàlla réeral amul ko ko mën a jubal wa ashhadu maa ngi seede te la an laa ilaaha amul benn buur bi war a jaamu illallah lu mooy yàlla waxdahu moom dong laa sharika déet xet la bokkaale lahu ko ñeel waa ashhadu maa ngi seede te dëgg la anna muhammadan na muhammad abduhu jaam yàlla wa rasuluhu yonentu yàlla la mu ne yaa yoon naas ay yéen nit ñi ittaqu ragal leen allah yàlla xaqa tuqaat yi dëgg-dëgg ragal ko te mooy ngeen def seen kéem tolluwaay kattan bu ngeen moom jubal cent pour cent jege ko ولا تموتن بلند إلا وأنتم نوي المسلمون ويجب لغن بلند نوي ينك يعني جريت ديسا يا أيها الناس أين اتقوا رغلين ربكم سن برم الذي برم بنا خمنا خلقكم بنا من نفس واحدة بنا بكن وخلق بنا من هاتم زوجها صحنا وبصموا جينا منهما شنم نار رجالا أي قول كثير من يبري wa nisaan ak ay jigéen yu bari it leen yàlla mi leen bind ci benn bakkan mu di aadama bindee ci aadama soxnaam génnee ci ñoom ñaar ay góor ak i jigéen wa taqullaa ragal leen yàlla alladi yàlla mi nga xamante dangeen da ngeen laajante bii ci moom wala arxaama ragal leen mbokk gi inna laa nak yàlla kaana mosu moo dañ raxiban daaji fuglu aleykum ci yéen yàlla mosul dañ di leen fuglu di bàyyi xel seeni mbir يا أيها الذين آمنوا إن جاني جم يلا اتقوا الله رجلا يلا وقولوا وحلا قولا سديدا لأجي جب يصلح دنا دفر لكم يلا أعمالكم سني دنا هون سني جف ويغفر مجدا لكم يلا ذنوبكم سني بكار ومن يطع كتب الله يلا ورسوله ينتم كوكو فقد فاز تخنا فوزا اكتر عظيما بأجي مكر amma baadu gannaaw bu ma sant yàlla julli ci yonent bi fa innoo naka li am baam lamma usnida bañ wéetee ilayee jëm ci man tadrisu madda jàngale ñaari matières yi benn bi mooy tadwiinu sunna nan lañ bindee sunna warwaatul xadis ak ñee solo xadis wa tabaqaatim ak seen étape li tullaabi sanatil ma di ko jàngal taalibe yi nekk ci at mu njëkk mi bi kulliyatil xadis ci kulliya xadis bil jaamiati islaamiya ci jaamiya islaamiya bil madinati munawara ci bil madinati nabawiya ci madina yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo doon jàngale ñaari matières yooyu alaftu ci yaa taayif xaateeni maddateeni ñaari matières yi li talaazumiha li talaazumihima ngir gi ñu taqoo tukamilu muy matal fahmi sahi ci dégg gu wala amal ak jëfe bi ma xool li matière yi xam su mën nashri ilmi topp tasaare xam-xamam ubasiya génn ko fi ummati ci xeet loolu su mën nashri moo doon jàngale ñaari matières yi ci moom au lieu muy jàngale li muy jàngale moom taalif ko benn na ñaari matières yi dañoo taxoo boo leen xamee rek da nga am dégg gu mën a jëfe yi li a xam su paree mu bëgg koo tasaare génne ko ci xeet bi ñëpp jariñu ci saalisan ñetteel waxam mooy xaawaltu jéem naa qadaral mustataa yi sama kemtalaay kattan a taqayuda tënku tënku bi mufradaati manhajil maddati ci benn benn matière yi eh, yoon yi matière bi maanaam li aju ci matière rek ci la bëggoon a yem al muqarar ba da saxal ala tullaabi kulliyati xadis ci taalibi yi jàng ci kulliya xadis lañ leen war a jàngal rek yoon yi ñu ko war a jàngale la bëggoon a laa na muqtadayaati taalif lu mooy li nga xam ni taalif dana ko sàkk wa tasnif ak defar téere it tarat ni loru loona ma axyaanan léegi-léegi li baax li idaafaat lenn ci ndollali aw ziyaadaat wala yokku aw tawassun wala gën a yaatal axyaanan léegi-léegi fi baax li faqraat ci yenn jotaay bi muqarrar bi ñu jël di ko jàngale foofu léegi-léegi mu yokk ci lu ci bokkut ndax taalifa demee noonu dafa bëggoon a xem muqarrar bi ñuy jàngalee ci kulliye boobu maanaam la ñuy jàngale ci kulliye boobu la ñuy jàngal taalibe yooyu rek mu taalif ci loolu rek waaye nag foo mu yokk ci loo xam ni bokk ci muqarrar boobu ndax taalif moo demee noonu boo ci boo koy gënul yaatal du leer bu baax a baax téere rek da koy taarif waaye léeg nga wax loo xam ne nekkul ci téere ba ngir gën koo leeral kama xawaltu nga firi téere wax ci lu ci bokk gën koo leeral كما حاولتكم نما جيمي جي وخدي سما غور غور ان لا اترك دما باي فقره بن ايتاب من المنهج سي يون مي جانغ فور خم ا آه، خم خمي غوري غوري حديثي دون دراسه دين تي لول جانغال جانغال لوم اندي رك دانا كو جانغال بام لير الى اني لومينا من تركت باينا فقرتين نيار ايتاب من المفردات تي بن بن ييغا خم ني نكو ورا جانغ تي والو حديث قصدا ماكو تي maanaam li aju ci wàllu xam-xam boobu yëpp na ko indi jàngat ko ba mu leer am des ñaar boobu maa ñoom ñaar bu njëkk bi tafsirul mustashriqina firig ñooñ xarf yi ñooñ penku yi lil fitnati fitna arit yi nga xam ne warada tudd na zikruha tudd na tuddam fi qawli ibni sirin bu nga xam ne kaanoo nañ la yasaluna du ñuy laaj an isnaadi si sanat ata waqaat ba mu tàbbi al fitnatu fitna ji xéeféer yi nit bon ñi fireeku firi mu bon a bon Hmm? pour tuumaa rek lislaam waaye waaye fitna gi daal mooy rey gi nga xam ne ne rey nañ ko yonent yàlla eh, kii kon eh, Ousmane Ibn Affan ko rey kooku ci fitna yi tax nit ñi di laaj sanad la ndax ba xeex yi commencé ah, ku nekk da ngay fexe rek ne yaa am dëgg mën nañoo sos ay xadis ak lu ne ko defee nag gars yi commencé di laaj sanad li wax foo ko teg waaye bu njëkk moom daawuñu laaj li nga wax foo ko teg boo ko waxaan koy nangu ndax wóolu wante woon nañ bañ demee nag ba parparloo bëri ci lañ commencé nag di laaj sënët hadis bi kan moo la ko nettali ba xam kooku wóor na am wóorul bu hmm. ko defee eh, yeneen wax yi lëndëmal yi ci ñeneen ñu wax loolu andiwu ko wa saaniyatu ñaareel mawqiful xawaarij taxawaay waa xawaarij wa chia ak waa sia min adalati saxaabati ci maandu saxaaba yi radi yàlla na gërëm allah yàlla anum si ñoom chia yi ak xawaarij yi dañuy contre saxaaba yi ne matu ne maanduwuñ waaye ahlu sunna yëpp ñoom dëppoo nañ ne saxaaba yi maandu na léegi nag koo xam ne nii wàllu xadis ci ahlu sunna ngay sukkandiku xadis boo gis muy ngàññi saxaaba yi xamal ne ñoom ahlu sunna wéraluñ ko ndax buñ ko wéraloon dañuy wax ne saxaaba yi ñoom ñoom maandu nañ waaw bu fekkee ne ahlu sunna buñ buñ jamee nit doo ko faale buñ manduloo nit doo ko faale buñ dàqee xadis yi doo ko faale kon bul sukkandikoo ti ci ñoom demal ci ñu nga gëm nga sukkandiku ci ñoom mu ne ŋàññi gi ñu ŋàññi saxaaba yi moom andiwu ci benn leeral daf ko ba ndax wax jooju jërul gerte wa kaana nekk na tarki sama bàyyi la koy asbaabil aatiye ngir sabab yi dikk bi nisbati li tafsir mustashriqina firi bi ñooñ penk yi firé maanaam xéevéer yi firé fitna gi nga xam ne nii tax na ñu ngi commencé laaj senet fakaana nekk na suquutu ak rotug wax jooju wa adamu sixati ak ñàkk wéram waa de xandaa ji leer bàyyi su laay saa yi nga xam ne du yema du tolloog taswira safahaati ñuulal ay paas di raddi ngir delloo ale ci moom maanaam wax jooju jërul bind ngir tontu ko dama wax yoo xam ne fay ko moo gën sax di ko nettaliwaat ndax amul benn njëriñ waxi kasaw kasaw la laa siyama rawatina wum ñoom qad tanaqadu seen wax yi dafa wutante dàqwante sax wax yi dëppoowut su ma inna eh, wute nañ fii ci loolu su ma inna fadlati cheikhina topp suñ sëriñ bu am ngëneel bi mooy docteur akram al umri xad kachafa wuñu na xawaaru zalika ayibu wax jooju xawaaru zalika tafsiru ayibu boobule firi bi maa ci naa xam ne la masiri di rek ndoolal ali di ci nekk seen wax jooju doyadi gim doyadi am na it sëriñ bu mag bu ci bind mooy docteur Akram wa zaalika loolu fi kitaab ci téeram buxuusun fi taarixi sunna ay gëstu ci taarixu sunna page cinquante et cinquante deux boo demee da nga fekk mu leeral ko foofu comme que am na ñu ma ci wutu daal te wax jooju waxi kasaw kasaw la kon jërul ñu ñëpp ñi di ci wax amaa mawqifil xawaarij waaye taxawaayu xawaarij yi wa chia ak min adaalati saxaaba ci maandu saxaaba yi fa xamaltu neenal naa aradu tontu alay ci moom lay asbaabi aatee ngir sabab yi dikk yii moo tax tontu ma ci benn ina tanazula naka jéem a wàcc li mu naaqashati misla hasil araay pour critique wala boog pour débat ci lu mel ni xalaat yu bon yi yaani mas na mu wadu saxaabati teg saxaaba yi fi xafasil ittihaam yi ci kaaf ak tuuma kon nu salimu danañ nangu bii ci loolu jëlee dañ ci ci werante su ma nee na cheikh lu topp ñu soxloo ban zalik gannaaw loolu bi difaa yi ci défendre saxaaba yi war di subahaat ak tontu lënt lënt yi maanaam dafa bëgg wax ne boo fi nekkee nar jàkkaarloo ñi nga xam ne dañuy xas yi di leen tuumaal nga wax ak ñoom yow dafa mel da ngay nangu tuuma googu ba pare waaw da nangu ne waaw da koy nangu nangu jëddale yéen nekkul ne da nga ko nangu sa xol il faut nga ne waaw naa lii nga wax ci nangu ko ba pare door nag taxaw nag pour défendre leen ak dindi leen lënt yi waaj di andi ñoom nag jombal nañ seen bopp sax nangu wax jooju bari ci tontu badara nu remplace mi naan nu shigila suñu soxlaal anfusuna suñu bopp bi taqriri manhajihim ci leeral seen yoon wa bayaani makaanatihim ak leeral seen daraja fi ummati ci xeet bi au lieu ñuy leeral yoon wi saxaaba yi jaaroon ak ci leen daraja daraja yi ñu am ci xeet bi ah dañuy nekk fii di werante rek kama waradat comme nu mu rotee fil kitaab yi ci alquran wa sunnati ak sunna wa ijmail ummati ak dëppoo xeet bi alquran saxal na ne saxaaba yi ñoom ñëpp ñu màndu lañ ñu baax lañ sunna saxal ko xeet bi yëpp dëppoo si ñi sa ñi sa dëppoo daal mooy bidaakat yi ak fentikat yu bon yooyu hmm? ñoo ci dëppoo waaye xeet bi yëpp ñu màndu ci xeet bi yëpp dëppoo nañ ci loolu su ko defee toog di ci débat di ci werante di ci nangam yàq sa taala saxaaba yi li baax si ñoom ñu war ko wax bëri na waxal loolu loolu la bëgg a wax leeral nit ñi ne ñoom ñoom ñu baax lañ ñu maandu lañ joxe seen jàngale leeral seen mbir nit ñi mën koo rey moo gën na nga bëgg a def su dund yëpp ci défendre mel ni ñoom kilifa waxoon na ko ne ma waxaa bi leen leen di leen tontu saa su nekk dañoo bëgg ngeen nekk fii di tontu di dindi li mag ñi jàngale mbaax gañ koo rey ngeen nekk fi di tontu rek di dindi tuuma rek waaw kon caaxaankat bu mu tourné sa yitte yëpp ci défendre sa bopp yow teggi tuuma rek nga nekk waaye nag yu baax yi nekk ci yow njàngale mi nga xam ni yéen a ngi ko yor nit ñi war see ñu du ngeen ko wax ndax ndax teggi tuuma rek ngeen fi nekkee moom loolu lay bañ moo tax du fii di di tontul saxaaba yi dafay leeral rek mbaax gañ nekkee woon borom xel bu ko déggee dana xam ne kër dafay sos waaye lii la alquran wax ci saxaaba yi. innahum naka ñoom ñaareel bi mooy innahum naka ñoom saxaaba yi laa yaxtaajunoon soxlawuñ maa tazkiyati laay ànd ak sell ak yàlla lahum ñeel leen azanoon na wajala te màgg na lahum ñeel leen wa rasulu ak sell yonente bi sallallahu alayhi wasallam ilaa tazkiyati ahadin jëm ci sell ak kenn fadlan waxatuma sax an difaa yi muy défendre anum ci ñoom saxaaba yi soxluñ ku leen défendre soxluñ ku leen sellal ndax ñoom yàllaa leen sellal ak yonente bi ku yàlla sellal ak yonente bi nag ku ko xasati wàññiwu ko dara tiyaaba rek la ko yokk tiyaaba rek la koy ëpp damay wax rek benn xadis doy na pour sala saxaaba yi mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ngay boole ñaari xadis yi nga déglu mu wax yonent bi dafa wax ne sarax dafay fay ñaawteef yi comme ni hmm, dégg nga euh, euh, safara di ndox di sa fayee safara fay ñaawteef yi comme ni nga xamee ndox boo ko sottee safara mu fay ko kon nit kuy saraxe man ngaa wax ne bakkaar dootu ko deseeti saxaaba yi nag yonentu daf leen dafa war ne ñoom ñoom raw nañ ñi ba pare ku la raw ba pare nag wax lu baaxam jéem cee jàng nga war a def waaye waroo jékki di ko ŋàññi tax mu ne bu leen ŋàññi samay saxaaba ñu ko lu tax leen ŋàññi mu ne parce que raw nañ leen xam nga atte usul yi dañuy wax ne atte boo ko saxalee boo indi ab melo dafa wax ne melo woowu moo waral atte woowu daf ne dafa atte saxaaba yi buñ leen ngañ ba pare gëñ ne ñun kenn si ñun bu dundale woon lu toll ni doju uxut ci wurus saxaaba dundale gën waa liibar gën waa liibar la wax sax waxut gën waa liibar ci wurus loolu ku ko def mbaa da nga dese bàkkaar bu dee saraxe dafay far bàkkaar saraxe wurus saraxa ci lu bëri lu toll ni daju uxut du faat benn bàkkaar yaa ngi dégg su defee loon jot leen ngeen wàll libaru saxaaba maanaam xadis bi lim la bëgg fekkee am nga dégg-dégg mooy boo defee jaamu yàlla goo xam ni bàyyilul la benn bakkaar raxas na sa bakkaar yëpp nga am tiyaaba gu mag a mag taxut nga jot saxaaba yi ci set ci bakkaar ak bëri mm-hmm. sarax ñaari ci nekk dafay raxas bakkaar di indi tiyaaba sarax loolu lay def dafay raxas bakkaar ba mu set wecc dend tiyaaba yonent nag jël jaamu yàlla gu mel noonu ne su ngeen defoon jaamu yàlla gu mel nii taxul ngeen jot genn wàll liibaru saxaaba bi maanaam saxaaba bi boo defoon loo xam ne dafay raxas sa bakkaar yëpp yokk sa tiyaaba bi saxaaba bi def ci lu tuute tuuti yoo nga def ci lu bëree bari bëri jotagoo saxaaba bi loo ci déggee mooy ñoom desewuñ benn bakkaar xeet bi mënuñoo def lu ëpp lu saxaaba yi def saxaaba yi dañ leen raw ci garaat dañ leen raw ci garaat garaat lañ leen rawee ci set bakkaar ak ak ak mbaax hmm? loo waral nag moom mu ne du ko ku yàlla setal nag yonent bi setal ko yonent wala ne set na ci bakkaar ñoom ñëpp yàlla tagg leen muhaajiroon yi ña gàddaay bu njëkk ak wala dina aawa nasaru min baadu ak ñi nga xam ne gàddaaw nañ gàddaay nañ gannaaw ga gëm yonent bi ànd ak moom ci xare yi yàlla ne ulaayka humul mu'minuuna haqqan ñoom ñooy jullit dëgg ñoom ñooy jullit dëgg yow nga ne ñooñu ay kàccoor lañ yaa ngi yàlla kan la ñuy gëm hmm? ñaareel bi yàlla wax ne wa kullan wa'ada llaahu l ñoom ñëpp yàlla dig na leen aljana yaa ngi may déggam kon saxaaba yaa ngoogu bu leen yàlla seen laag yonent bi sallallaahu alayhi wa set nañ ci bàkkaar nga yow nga lim seeni bakkaar bàkkaar borom bu yàlla jégal bakkaar nga di ko lim bàkkaar da nga yokk sa bopp moo tax gars yi dama moytu leen bakkaar borom xam-xam ndax amaana yàlla jéggal na ko bu yàgg yow nga nekk si di wax di taq bakkaar bu fekkee borom xam-xam rek moo am loolu waxuma nag saxaaba yonentu sallallahu alayhi wa sallam kon xadis boobu ko am dégg-dégg dana si jàngee nit bu defee luy setal bakkaaram yëpp di ko may tiyaaba gu bëri taxul mu jege saxaaba yi si set ak bakkaar ak bëri tiyaaba ba war leen a mën a ŋañ mhm. kon ñoom yàlla def leen setal si ñaar yëpp kooku kon jëru défendre ndax moom yàlla défendre na ko bëri inna laa yudaafi an lazina amanu yàlla mooy défendre ñi gëm ñetteel bi mooy inna salafana naka suñu mag ñi min ulama ay sunna ci borom xam-xami sunna lam ñu sawidu ñuulu luñ safahaatin ay paas safahaati kutubihim seen i paasu téere bi raddi ci tontu ala mawqifi hawlaay ci taxawaay gaañ ci taxawu gaañ ñi mel mubtadaati ci fentkat yi mel sahabati saxaba yi hawlaay mubtadaa fentkat yi mel sahabati yi mu ne mag ñi daawuñ taalif téere pour tontu ñi xas saxaba yi bal li fi nekk iktafu doyul nañ bi sardi nusuus yi ci indi ay textes alwaarida yu rot fi taskiitim ci sellal leen mel ne kitaabu ci alquran wa sunnati ak sunna wa ijmaal ummati ak dëppoo xeet mag ñi daal lañ leen def mooy textes yi nga xam ne alquran andi na ko sunna andi na ko xeet wi dëppoo dëppoo ci ne saxaba ñoom ñoom ñu baax lañ yooyu lañu indi jàngal la yow boo xel la nga xam ne ni waa jëlee jëleen ñi dafa dafa sànku wa bayaani fadlim ak tax yi leeral seen ngëneel wa jihaadim ak tax yi teg leeral seen jihaad yooyu lañ leen andi su man soxlu topp ñu soxloo bi taqriir man hajim ci leeral yoonu saxaaba yi final mi ci xam-xam wala amal ak jëf pour nit ñi mën leen roy moo gën nag ñu tourné mbir mi si jéem leen a sangal seen der te fekk ñoom yàlla sangal na leen seen der ba pare loolu li waral mu ne téere bi andiwut ci défendre saxaaba yi un fur xoolaan zaalika ci loolu masalan ci misaal ما كتبوا لبن ابن ابي حاتم في مقدمه الجاه والتعديل الخطيب البغدادي في كفايه الباب باب ما جاء في تعديل الله بنت لير في ماندلو جي الله ماندلو ورسول الله لصحابة صحابي وما كتب حافظ ابن حجر في مقدمة إسابة ما اسمه تير بوب إسابة فضلا وهم عن سني صاحبي صحيح ci la nga xam ne ñaari borom téere yu wér yi def nañ ko mooy ay imaamay ñaari njiiti al buxaari wa muslim ina xasasa bañ jagleele fi kitaabihima seen téere kitaaban ak téere li zikri ma warada ngir fàttaliku la rod na fi fadaayili saxaaba ci ngeneelu saxaaba wa manaqim ak seen daraja maanaam buxaari ak muslim indi nañ taayif na ñaari téere maanaam ñaari bunt yoo xam ne ñaari téere yoo xam ne ci wax ngeneelu saxaaba ak seen daraja yàlla jox wa xëy na yooyu mel ne kutubi ci téere boo liiree téere yi da ngay gis ñoom leeral mbaax gi saxaaba yi nekk woon moo leen gënal toog di leen jéem a défendre ndax boo leer la diw ku baax la rek loolu to doy na tontu xam nañ ci ne xam nañ ne ka leen ka koy ŋàññi ku bon inna min manhaji salafi bokk na ci yoonu mag ñi annama yattaruna buñ loroo li raddi pour tontu ala misli hawlaay tawaif ci lu mel ni kuréel yi a ayan xuloo moo ñu toxal al maarakata guerre bi ilaa xuli daarihim seen kër <laughs> mag ñi dañ laan def parce que jàng dafa baax boo jàng nga xam ne tonto au yow nga dem nga jël thème bi def ko ci saxaaba bi ñi kii di ko ŋàññi ngay raxas waaye ji nga xam ne nii mooy ŋàññi yi moom ngay dal yow mag ñi lañ laan def léegi thème bi nekk ci moom yaa ngi seetlu ma bëgg wax moo tax xam-xam xam ko dafa baax war nga xam nooy mën a waxe ku yem ne ab saxaaba nga nar koo jël teg ko ci taabul bi ñu naan dañ ci waxtaan baax naam baaxut yaw moom lañ war a waxtaan baax nga baaxut moo tax mag ñi dañ jël guerre bi tourné ko ci yow amaa ñoom bu ñuy wax ci saxaaba dañuy rafetal rek moo ku baax bul nangu ñu taaj ko ci taabul wala mbir mu baax taaj ko ci taabul di ci werante ñi naan baax naam baaxut ak fii ko teg ak faa lañ ko teg waa jooju moom di wax ne ñi baax na mu wóor na la mu ngi sikk yu bëri bëri bëri moom ngay taaj ñu sàngat ko moom moom ñu jàngat ko moom moom moom est-ce que ni moom war na koo wax waru koo wax parce que balaa ngaa xas kenn da nga war a baax mm-hmm. mag ñi nag ndaw ñi war nañ koo roy maanaam buñ jël nit ku baax def ko maxallan li naq di barab bu ñuy critiquer def ko ci xafasul ittihaam hmm, kaaf ak hmm, hmm, tuuma déedéet waa jii tuumaal mag ñi moom lañuy ñuy tuumaal ba pare jàngal mbiram moom waa léegi nag moom bu fekkee dafa bañ ku ko tuumaal bu mu tuumaal ku ko gën a baax bu mu tuumaalee ñu ko gën a ñu ko gën a baax waaye tuumaal nañ ñëw fay ne kenn du la tuumaal kon mag ñi lii lañ def dañ laan delloo gerte fayax takku ñu xotti asaalum seen sutura ñee xas saxaaba yi ñoom la xotti seen sutura wayaf doxu ñu gàccaal baatirum seen neen nga caaxaan nañ indi ñu feeñal ko wala na ñi duñ tus ay caaxaan kër lañ wa bayanoo ñu leeral fasaada fasaada man a hijim mën a hijim yàquk seen yoon waxu waara mën a hijim ak ayib gi nekk seen yoon mag ñi ñëw leeral ñii seen yoon bon wi ak ayib gi nekk si ñoom moo tax tamit gis nga ba léegi waxaa bi xas mag ñu baax ñi nit ñeneen tontu te muus dëgg-dëgg ñoom duñ nekk fi naan ñu baax ñi nii lañ mel ak naa lañ mel parce que mag ñu baax nañ ba pare jàngale seen yoon waaye waxaa bi bi ngay dal leeral ayib bi mu nekkee saay saay gu mu nekkee mbon gam nekkee ah tuur na guerre bi ci moom kon lii nii la daan mag ñi di guerre moo tax xam waxin dafa am solo jàng téere mag ñi ba xam ñoom seen seen uslub ak nañ laan doxale dafa am sol mag ñi nii lañ laan doxalee ku jug bëgg yàq lu baax lu ñëpp dëppoo lu baax la moom mu jug bëgg koo yàq mag ñi moom la ñuy jàkkaarloo moom la ñuy moom la ñuy jàkkaarloo wan ko ne ko yow moom doo tus ba bëgg dal ci la ku sell ku baax bu pare au lieu nga jàngale ay mbiram ak mbaax bi nekk si moom nga nekk foofu di wane naa est ce que moom baax naam baaxul est ce que waa ji nga xam ne ab kàccoor la loolu duñ ko duñ ko daan def hmm? kon dañ naan gàccaal leeral mbiram wala yeen seexlu duñ soxloo mukk biret bi maa yu siirunu ci tont la ñuy génne mi ne sukkookin ci ay sikk aw yore wi juunu wala ñu di ko jaral min subaxaatin ci ay lënt-lënt ilaa fi adyaqi adyaqi nitaaqin lu mooy ci yoon wi gën a xat maanaam gaa yi lënt lënt yi indi ñoom ñu nekk di ca wax muy gën di tasaaroo di jar mel ni lu am solo dañuy lëndëmal lënt lëntam yëpp tourné débat bi ci waaji ci boppam yaa ngi sell mag ndax mag ñu njëkk ña jàngal nañ loo xam ni ci biir ak dund bu ñu nekk di ko wax du jeex léegi nag bu ñuy wax ci mag ñu njëkk ñi dañuy wax seen mbaax ak seen ak kawe saay-saay bi taxaw bëgg leen lëndëmal nag moom la ñu war a kii moom mooy saay-saay lii moo doon yoonu mag na mel ne nag gis nga tey boo ko doon def fi mu nekk la eh, yow da ñi nangam nangam nangam nangam nangam te ñoom duñ xool ne waa ji moom moom ku la gën a baax gën koo baax moom la toog di ko contourner dégg duñ xool loolu ay saxaaba nga toog ñu ma leen a ŋàññi nga ne kenn du la ah? mag ñi dama la ñaanal ñan balaa ñoo tontu lëntalante nag gis ne lii buñ ko tontu mën naa am lu mu lëndëmal loolu la ñuy loolu la ñuy boo loolu la ñuy tontu maanaam buñ xatee loo xam ne waaye li ëpp seen wax mooy yow mi a xas saxaaba bi wala yow mi a dal lu baax lu ñëpp xam ne lu baax la ci yow yow la dal sa kaw yow loolu c'est normal. parce que lu nekk dafa war a am ku ko war a matee yow li ngay taxawee matee woo ba pare ñu ñu may la yoon na la waxal ci di waxal ci nanga waxal parce que war nga cee wax te matee woo ko mag mu xel moom bu ñëwee bu fekkee topp na yoonu mag ña naan la yow yow mii li ngay taxawee ni matee woo ko rek jeex na comme que matee woo ko rek li ngay wax yëpp mabbu na dara amut si njëriñ borom xel mu am xel dana jàngee loolu ci wax ci comme que kii li muy wax nii matee woo ko dëgg dëgg la muy wax yëpp dara wérul parce que xam-xam ku ko matee euh, wax loo xam ni matee nga ko daf ci am daf ci am njëriñ kon mag ñi nii lan def yow it del def nii benn kilifa mosuma wax lu mel ni ñoom bu leen nekk di tontu di tontu di tontu di tontu di dindi tuuma mel ni yéen tuuma rek ngeen am mais dee leen leeral baax gi seen maam yi nekkee woon boo demee bu mënoo ñàkk tam tontu wante gaay daral seen kaw ñoom wala leen ne nag yéen ñi ngeen wax ni ñoom ñoo leen raw fuuf di seen morom. booy wax si ñële waxal lu baax lañ nekkee waaye bu fa nekk di leen teggal tuuma loolu loolu du débat ba de ndax ñun baax nañ ba pare léegi nag tuuma gi jël ko dal delloo ko keneen ko teg yaa ngi seel yaa ngi seel nu wax ne moom la ma ngi doon def del def nii del boo defee nii nag nit ñi nga xam ne comprendre bi seen jàng soriwut daañu la sikk waaye loolu amatu naa si la seen sikk seen sikk bul ko faale ولا يلا تعالى كون أصل من كون نيان أن يلا مدف عمري سما جف هذا بي خالص المجسل لوجه الكريم يلا جمع بتردي ما نيان يلا جف جي مدف كجف جسل يلا جمع ويتقبلوا من أنك من نجم والحمد لله تلا نيان يلا أول نسمي بن وآخر المج وصلى الله عليه وسلم وعلى وسلم دور مسلم على أسرف خلق الله شيء جن تردي سمي لي في عليه محمد محمد رسول الله ينتهى المؤلف كتاب في ربي مي محمد بن مطر الزهراني في عشرين سنة فكفن من شهر الجمعة الأول ci weeru jumaada alawal min shuhuri sanati min shuhuri ci ay eh, ci weeru sanati arbain arba asra baada arbain mia wa alfin gannaaw mille quatre cent quatorze la ko taalif almadaniye eh, almadinatu nabawiya ci madina yonent bi sallallahu alayhi wa sallam arasa yàlla na ko tollaa yàlla su ko defee lii mooy <coughs> dars bu njëkk ci téere bi علم الرجال نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية التاسع من يمالك ببن يوني مطلق إن أريد الإسلام استطعت ما توفيقي إلا بالله يعني توكلت وإلى أنيب كما أسنى نياري تيري بسم الله الرحمن الرحيم من تدوين السنة نبوية أك علم الرجال ñoom yaa ne yàlla lañ ko mottali ci alhamdulilahi rabbi alamina jàng téere nag dafa am solo ndax day tax nga xam manhaj bi mag ñi jaaroon nga jaar gis nga yoon bi mag ñi jaaroon boo fa jaaree doo jum bu mukk doo jum bu mukk waaye beneen yoon wu mag ñi jaaroon boo fi jaaree mën ngaa jum léegi-léegi nag jamono mën naa dem ba lëndëm nit ñi duñ xam mag ñi yoon wi ñu jaaroon boo fa jaaree ñu ŋàññ la waaye bis dina ñëw ñu xam ne la nga nekkoon lépp lépp boo demee ci fekk ko ñu rëdd ko ci téere boo xam ne moom moo la mag kon jaaroo lu may ci yoon mag ñi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu